pour euh, discuter de panel au niveau de euh, Rufisque commune de euh, la famille d'acteurs yi ci ben thème bo wax yi ni ñi duggé ci école bi ñu génn ci cycle en même temps aussi xalé yo xam pour mëna école bi donc ñu invité les parents d'élèves yi invité élèves yi inspecteurs ñu ñëw euh, panel bi defal ñu thème boobu ñu waxtaan ci xol yan pexé lañu wara def xalé bi bu duggé ci école bi nak la ci toogee bay eggali njàngam xalé yoy am jafé jafé nga xamné jafé jafé nak nag li koy indi dafa bari mën nek euh, école bi ci doxalinam ci environnement bi mën nek nekk kat bi nu mu ci biir classe bi mun nek aussi problème ci biir kër ga fekk mu bay ay waajuram ñu am problème Mon nek aussi bu ñëw ci école ba li wax violence donc amna yu bari yo xamantene xalé bi mun na su duggé ci jang jang bi euh, ci école ba mu mun a yeggali euh, njàngam ba fañ ko bëggé non ñi jaajeufal wa ko ci liggéey bu rafet bi ñi def parce que thème bu melni euh, thème bu am solo la parce que ñi dugg du ñom ñëpp ñoy jang ba jéxal doog a génn am na ñoo xamante ni bii ñuy dinañ genn li tax ñuy genn nak ay raison yu bari la te wuté war tax nak ñu taxaw ci Euh, xeex ko ba nga xamante ni bii ñëpp ñi nga xamante ni bii dugg nañ ñu fekk leen ba ñu mën a jeexal parce que ci jeexal boobu ci la ñu mën a amee lu ñu bëgg parce que ñiy dugg ci école bi c'est des acteurs yu ñu war a former pour ñu nekk ay acteurs développement soo jeexalul sa cursus mooy ne am na lu manqué te loolu nekkul objectif ecole école moom mooy euh, place boo xamante ni bii dañ fa war a góorgóorlu pour yemale chance su nit ñi yemale chance nit ñi nag mooy nga fexe ba ku war a jàng mu jàng mais xëy na fii ñu toll ñi ngi ci. waaye li olof naan xalangu dajut suuf c'est-à-dire que du da ngay jóg rek lépp sotteendoo xëy na ci yenn ci sunu école yi am na ay sénégalais yoo xamante ne war nañoo jàng te mënuñu faa jàng soo jëlee lu mel ni handicapé yi léegi-léeg seen nekkin ci école ordinaire yi day jafe duñ fa mën a nekk xale yi nga xamante ni bi am nañ yenn at yi am yoo xamante ni bi daf leen di dab te xëy na ba ca war wala baye xel bi ci war nekku fa aussi ñoñu ils ont elles ont tendance parfois ñuy retirer wu di génn école wala buñu ñu génnutit absenté yi nii absenté dina tax ba mujj gi baye sax mo leen di gënal parce que dañuy am retard bu bari yoy yëpp nak luñu wara baye xel la te defe naa ci loolu lañu ñu ko si def di soññe motax mu organiser panel bi pour ñu waxtané ko tay mën cee gën a xel pour que lepp luñ ci mën pour que xalé yi duggu nekk ci ay conditions yu baax ba mën a yeggale seen cursus ñu nekk ci je pense aussi que ni gouvernement bi mi ngi ci. bu ñu bëggee ubbi tey jàng tey bi sax am na lu ñu war lu ñu war nag moom mooy la nga xamante ni bii moom mooy protéger ñiy ñëw moo xam jàngalekat yi la moom moo xam élèves yi la loolu aussi ñi ngi ciy liggéey boo gisee fu mel ni Rufisque commune tey partagé nañ ak ñi nu waroon a partagé euh, disposition yi ñu jël euh, bindoon nañu ay bataaxal aussi envoyé ko mairie pour euh, xaar leen ñu taxaw ci loolu. ñom ñëpp jot nañ ko amna sax ño xamanteni bi ñu ngi defal ay retour euh, je pense que ni suñu renforcer matériel lu melni ay masque lu melni li ñuy raxaso lu melni li nga xamanteni bi mëna ñoo nañoo ba ñu laal virus bi loolu war na mën effectif té ñi ngi liggéey ci loolu.